ci juróomi poñ la ñu daal di tënk seen njàngat gi boobule jàngat nag daal di ci boole képp ku yeewu fii ci Sénégal wala sax ku daal di nekk ca diaspora. lu ëpp junneex eh, téeméer tontu nañ ci mu jëm ci euh, wér-gu-yaram njàng mi état de droit bonne gouvernance habitat mooy euh, dëkkuwaay yi ak xëy mi. étude bi nag booy seet ñeenti sénégalais yu nekk. ñetti ñi am nañu lu ñuy ñoxtu. si njàngat gi nga xamante ne nag amal nañ ko eh, ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett mu mel ni nag am na ay bëgg-bëgg yu gën a fës. Sénégalais yi bi ñu leen laajee ñoom nee nañu leen gën a soxal mooy seen wërgu yaram ñu teg ci njàng mi ndaxte eh, doomu aadama xalam la yor waaye ñetteel bi mooy état de droit ak bonne gouvernance bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoo ko amal nag yile lim yu dëggu la ndaxte téeméer goo jël juróom-ñaar fukk ak benn gisuñu seen bopp ci li soxal wérgu yaram ci njàng gi nag téeméer goo jël juróom benn fukk ak juróom ñaar gisuñu ci itam seen bopp. étude bi donc dañ ko def sur une méthode statistique bu nga xam ne day représenter Sénégal yëpp bàyyiwuñ kenn trois pour cent d'erreur la euh, la nañu mën a wax ci étude bi li ñuy wax euh, fiabilité bi. dem na ba quatre-vingt-quinze pour cent. Euh, bile euh, téere nag bi nga xamante ne nag moo ñëwaat ci li askan wi euh, daal di bëgg dinañ ko jébbal njiit yi dinañ ko jébbal itam ki fi war a nekk njiitum réew mébét bi moo di li sénégalais yi am ci bëgg-bëgg njiit yi daal di koy xam ngir mën ko saafara.